production ñoo leen di may seen émission Taku Show seen émission Taku Show dellu siwaat ci kattanu yàlla ci seen télévision Walfadjri la voix des sans voix ak seen site bi dee di Walf net ak différentes plateformes groupe Walfadjri ñu fas yéen a ànd ak yéen di rub 1 heure ci seen magazine bi lee dinañ ko ubbee seen rubrique lu ay euh, kaddu mag ñi kaddu mag ñi nag niki alxames bu nekk euh, Omar Bun Xataab Gueye ak la mu ñu indil bu ñu ca noppee jàll ci pajum cosaan Alaaji Sa Njoogu Mbeng séq waxtaan ak euh, Cheikh Baara Ndiaye borom def gis ñu jàll ci victime du net son bu Jóob mooy ki koy amal ñu ndar képp bi la jotaay Omar Bun Khatab Gueye maa ngi lay nuyu di la ziar. di ziar bu baax ajaratu di la nuyu bu baax. di la ziar ci koor gi. jërëjëf di ñëpp euh, di ñaanal ñëpp jàmm. amiin yaa ñaanal euh, El Hadj Ndiogou Mbengue saa di ko nuyu bu baax. di ko nuyu di nuyu sëñ bi sëñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacké euh, di nuyu son bu Diop ñu ngi koy ziar bu baax ci koor gi di nuyu Cheikh Bara Ndiaye sunu xarit di ko masaw bu baax ah. ca daaru seeg yooyu di ko ñaanal suñu borom ma yokk ko ak sutura defal ko jàmm ju bari ak njabootam ñoom kateeg ñoom ñëpp ñoom abok ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaar neen masawu ñii moom fi ne ni moom xam naa ne xewer xewer la waaj moom bu campagne bi jeexee ah, mais dara yàlla bu coono réer rek yàlla buñ ko rëcc di nuyu ñëpp di leen euh, ziar di nuyu sëñ Sidi Taïbu Niass Cheikh Sambaka di nuyu Assane Diop euh, taximaan Serigne njool bu ndaw dama koy bañ a fàtte di ko nuyu bu baax a baax euh, parce que ci suba danoo daje te bëggumoon fàtte yóbbante bi mu ngi suivre plateau bu baax euh, côté sorewul sax côté Kër Cheikh Bara ci HLM mooy taximaan yi rang foofu di ko nuyu bu baax moom Assane Diop taximaan di nu ñëpp di leen ziar ci kanam nag ñu fa yéene waxtaanee rek euh, fi ñu jëm di dimanche mais comme bi ëttu diine la ñuy waxtaan politique ak diine. ak euh, na mu doon doxee démb ak ak ni muy doxee tey parce que gis nañ candidat yi ku mu ne ci ñoom boo wëree ba egg ci këru diine di nga fa sukk tàllal sa loxo waaye bii dama ci am seetlu boo xam ne ci kanam dinaa ci yegg lu may ñaanal gi ay ndigal yooyu yëpp doo ko déggati daal candidat yëpp ku ñëw dina la ñaanal nga dem loolu dax ñu indi benn kàddu yu maam Abdou ci kanam incha allah ñu fa yéene waxtaanee rek élection yi jëm politique ak euh, li jëm ci tarixa yeeg ñoomin seen ku ne ci kanam tuuti lay doon son bu Diop maa ngi lay nuy di la ziar Diop. maa ngi lay fay Adja di la ñaanal yàlla jàmm di am mbégte bokkaat ak yow plateau bi nga xam ni mooy Taku Show di am uh, te waxtu yi nga xam ni sénégalais yëpp moom la ñuy seetaan mm-hmm. gërëm xaritu Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Ahad Mbacke Alaaji Sa Njogu Mbeng mm-hmm. ñaanal Serigne Sidi mu yàgg fi lool te ànd ak wér yëg nañu teraanga ak uh, li nga xam ne moom lay defal néew ji doole yi ne ci biir Touba xam nga sama classe gi bu ñu def koor ci ci ay ndogu ci koor gi dañ ñaan man de àllarba balaa ko jàpp waaye sëriñ si di diiran koor gi ñu new doole ci eh, Touba gi yëpp ak ñu nekkul sax Touba dañu fay ñëw mhm. ay la yéwén la nga xam ne tey président Macky Sall bu ñu foon jóor wala Sonko wala keneen ku mu doon la mu koy taajal loolu lay togg di leen ko jox kon boog Mbàkke ñu ngi koy ñaanal bu baax mu yàgg koo fekkee te tal ko lool mhm. nuyu ko moom Omar bun Xataab Gueye macha allah tey def na double baatam bu baax def ci couleur bi nga xam ni kuréel bi rek la mariel weex mu boj defee noir macha allah sëñ Baara ñëw na indaale Sénégal moom sax boo xoolee campagne bi yëpp Sénégal rek la àndal mi ci baat bi lu mu a sol. tissu bii nag. dafa rafet. dafa rafet ba pare waa lu tax ma xam ne nante la bu ñëwee sëñ Baara dama doon xool loxo yi naan ana ana ana yi. mais lii kii la non amu ko non amu ko parce que bu fekkoon bu fekkoon dañ ko def ko ñawee comme nii. la xew Darou Moussa yëpp. dégg nga Adja dégg nga <laughs> bu doon hmm. a am mais waa ji ndaanaan la kii ñawkat la rafet na macha allah jàll ci saa ah joxal saa góorgóorlu na rek euh, moom góorgóorlu na rek nuyu la bu baax sant la gërëm la macha allah euh, waaw ba ci kanam ñu ñëw ci yàgg a baax gaa yi def nañ ko ni defoon pap kii démb Jamaay euh, Fay dinañ ci ñëw d'accord famille Wàddeen daal jeex nañ tàkk Pape Jibril la ko wax ayca <laughs> alaaji maa ngi lay nuyu taalibe sañ Sidi xarit sëñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad ziar naa la waaw ñu ngi lay fay bu baax a baax. <laughs> ñaari émission xajul fi kontaan ci Adja di la ñaanal jàmm. amiin ñu waaw di dem ba Touba nuyu xalifa général des mourides sëñ di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd waaye ñu ngi nuyu di ziar sunu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke. Mhm. ñu koy ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wér. di ko ziar bu wér. li sooy bu wax noonu macha allah mooy li am Matar Sarr keroog. Eh, nee na da doon dem di espionné ji di di xool moom Matar Sarr hmm. ndax nan la ñuy defal kii waaye nee na ba mu fa demee gis ni ni ñuy ndogoo mooy la ñuy jox ministre bu buñ ñëwee loolu nga xam ne xàjj ak seen amu ci kon sëñ bi yàlla fi yàgg loolu tànd ak wér di nuy sëriñ xaadim ne ca kër ga di nuy njaboot ga yëpp di leen ñaanal jàmm nuyu nañ bu baax nag ki nga xam ne mooy sëriñ Abdou Karim Mbacke borom Makarim wax laa nuyu kilifa diine yi ci biir réew mi yëpp ñu ngi leen nuyu di bu baax Euh, maman Dieynaba Fall kooku sunu maman la waaye di nuyu monsieur Lo kooku mhm. sunu tonton la ñu koy nuyu di ko ñaanal jàmm Umar bun Xataab ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm macha allah euh, noir blanc bi formidable euh, te kooku teg nga ko ci axe mm-hmm, waaw mu mel ni waa boor bi bokkut ak waa boor be waaw di mënoon nga ko teel a wax ndax sëñ Abo bu ko caméra bi mënoon génne tey ba Modou génne ko saa mënoon ngaa bàyyi ah, abaato xoolal abo ti non tise abo non desu abo desu abo non desu abo la jël ñaw ko <laughs> non xoolal xam nga bokku ci émission bi mais tey moo du ko waroon a wax waaw ah, loolu jërëjëf non non non jërëjëf ah, loolu ga Cheikh Bara lay gaaruwaale ci pet non non gaa gaaruwaale jërëjëf lim sol xool ko jërëjëf Cheikh nga xam ni sam bu ñu wàññee sama ñaa caaya ñawal ko béti bu amoon xam sama caaya bu ñu ko wàññee ñaw ñawal ko ci mbaraan loo sébaara lay gaarwaale dix-huit mètres dix-huit mètres ñoom ñaar mën nañ koo ñëw dix-huit kon du nekk desit ah, nga wax ma ni daal aboo taal mi daal aw ba wax desit nga xam ne Cheikh Bara nga xamante ni. su ma ñëwee sama caay ba jëlee si ba ñëw caay ba pare ba defar. sëñ xaari ma tax mënu maa wax ci mënu maa wax ci ñëw bi waaye xam nga ne kon danaa ko détaillé. macha allah di wax ni yéen nag tey tey nag dama def ni woon nag di ko épargner tuuti nag. ba ka yëpp nag. Hmm? wax yàlla yëpp nag waaw nga xam ni gaa yaa ngi war bi ci kii bi. kii bi du dàllam de marakis bu weex. marakis boobu nee nañ marakis ak loolu yëpp dana leer ci kanam. <laughs> dàll yi daal yi maara la <laughs> <laughs> <laughs> waaw uh-huh. donc ñu ngi nuyu Cheikh Bara Ndiaye. Hmm. macha allah di ko wax ne ko euh, li ngeen di wax noonu naan tisi bi lii ak lii mais vraiment Cheikh Bara. Ah, euh, tisi bi ban tisi tisi bi lan la tisi bi lan la. bi nga la la. rafet na. filaafi yow kon saa fii nga mujj tisi bi ban la. foofu. filaafi daa soog. malheureusement. mais saa ko foofu nga ah, nuyu escroc bi nga xam ne suba ba nag ni saa sama bureau la jógee. waaw lu ne mu wax ko ci wax nga baax ci li nga xam ni moom laa sañ léegi ñëw fii soppi ah allez day cuubu. Mm-hmm. day cuubu day cuubu. mën mi waaw ana audio bi. Cheikh euh, Cheikh vidéo Baara Ndiaye borom des gi Cheikh Baara nag jàmbaar nga euh, li nga li nga dund fële ca Daaru Muxti tey nga ñëwaat toog fii te dégg naa yaa ngi woon ci terrain bi di eggal la nga doon def mm-hmm. vraiment jàmbaar nga ba pare nga ñëw sañ sa ba rafet ñëw toog maa ngi lay nuyu góorkat yi waaw maa ngi lay nuyu di nuyu waa Touba njabootuk sëñ Daaru Asan Ndiaye sëñ Abdou Xaadir xalifa sëñ Daaru ak sëñ Ibrahima Ndiaye jëmbo eh, ak sëñ Mbacke Mariamu Ndiaye sëñ Cheikh Irada sëñ Cheikh Mbacke sama Samsul Bilaat sëñ Jiili Ndiaye ak sëñ Ngunda ak mboolem njabootuk sëñ Daaru Asan gépp ak sëñ Baara Ndiaye sama xalifa sëñ Bas Ndiaye sëñ Muntaxa njabootuk sëñ Masamba Oumy sëñ Mor Ndiaye sama mag di nuyu ñu ñu bokkal plateau bi di wax tey li ma sañse comme ça Ndiogou toog na ba mu yàgg mu ne ma lii lu mu rek. tey combat amul oh, tey moom vraiment ñoom ñoom ñëpp teg tekkal nga leen. ah mi ngi jamono ji ay tisi bi Sadio Sadio am nga problème Sadio tisi bi la xool muy tàkk. non dafa rafet. <laughs> non xamut lu mu doon. waaw waaw waaw li mu doon léegi ci ay tisi lañ jamono. tey étonné kii naa la ah. hmm. rek maanaam kii ni nga waxee sans ba nga xam ne moom saa yi xaalis yooyu ñoo koy faral d'accord comme mi ngi naan tisi bi ba tisi la <laughs> non sax tey daanu nga. tey tey moom saabu. bëgg naa laa faral loolu waaye daanu. mel na bëgg tissu bi rafet na neex a faral xam nga Sonko mooy neex gaa yi nañ Sonko mooy neex a faral dimanche. waaw maa neex a faral alxames. alxames wallaay alxames moom plateau man kañ ci li tax mu bàyyi combat bi fii dem fari fee man loolu ba tey bëgg naa ngeen leeralal ma ko. dëgg rek saa bu fekkee da koy suturaal nga wax lu xew. moom asana yam bi crédit dugal lu sëñ Baara dugal lu sànq muy joxe numéro. numéro kan. Ah. Ah. ah dégg naa nga jox sa numéro. numéro kan xaalis. numéro ah, xaalis ah xaalis bi alaajee ko moom de <laughs> ñu ko bañ a leeral. Eh, mi ngi noonu tous les jeudis noonu lay demee en tout cas Cheikh Bara ñu ngi lay masaw bu baax a baax a baax yaag ña nga àndaloon d'après li ma dégg ni moom nga expliqué doy na waar trop ñu ngi lay massaw ay ca ñu dem jëli kàddu mag ñi. ñu jox la kàddu gi Omar. ñu suivre rek euh, kii di sëriñ Abdoul Aziz Sy baax balaa ñuy dugg ci thème bi rek euh, ñu suivre ko ñëwaat. papa yàlla yéen hadiisu yonent bi di ko firee leen neex. ngir ragal gouvernement bi. ngir ragal nguur gi. ak ragal ñi lay jox eh, chèque boo tuuse. ak ragal léegi tey nga wuute ceeg nit xalaat dootu la may chèque boo tuuse. bu ñu kenn soppil xadiisu rasulullah. nee na bu ñu kenn soppil xadiisu yonent bi. bu ñu kenn firil alquran kenn mu tëddeewul. bu ñu kenn firil alquran kenn mu tëddeewul woon. yàlla ne laa tabdiila li kalimaatillahi. yàlla nu ko tere day laa tabdiila li kalimaatillahi. looli. looli. bokk na ci jàngoro réew mi. bokk na ci jàngoroy réew mi. yal nañ yàlla muusal ci loo xam ne lii koom-koomu adduna la ko tax a changé ak di ko wuti. waaye waaye yal nañu yàlla musal ci coppatiku soppeeku goo xam ne koom-koomu koom adduna lañ la jëndee wala nga di ko wut tax nga def ko. bay Serigne Touba bi mu fi nekkee. maam borom Touba radiyallahu anhu bi mu fi nekkee. ay tubaab nekk fi. ay tubaab nekk fi. am ñoo xam ne dañu jàng jëm ca tubaab ya ngir luñ ca am. am ñu daan jàng ci tubaab yi ndax luñ ca am. mu ne waylun liman ila nasaara maala li kay yanaala miknatan wa maala. mu daal di ca def nekk daa benn bayt ëpp na ko sax xëy na waylun liman. waylun bugg waylun mbugal xur ca safara. bugg yàlla safara. ñeel na ka nga xam ne jàng na jëm ca tubaab ya pour jële ca daraja ak alal ju mu dunde ñeel na doomu aadama ji jàng ah, mi ngi noonu jëm ci maam Abdou ñiin woon kàddu yi rek euh, pour illustrer ko waxtaan wi ah, jëm ci diggante nitu diine ak nitu politique yi ñu euh, am jamono jamono ji nag li ñu koy gis bariwul wala bu dee am du lu ñuy teg bët ñun ñëpp dinañ gis daal nitu politique yi dem seet nitu diine yi waaye buñ pare Euh, daf mel ne lan fa doon ursi ak lan fay jëlee day wute parce que da ngay gis rek sëñ bi tàllal ñu ñaan te am na jamono bari na ñi daan dem rawatina ak anam gan doon demee ndigal lan daan xaar ci politique maanaam ñu ni leen ah man de sama mbooloo wala kii wala ñu waxee kàddu goo xam ne day yóbbu ci xel yi ni ki diw kii la àndal mais danoo seddu ci campagne bi sëriñ si ñu bari maytu nan loolu ci man li ma gis ci campagne bi wala boo gisaguma vidéo boo xam ne da nga koy gis ab kilifa diine bu nu ràññee peut-être sax am na ñu koy def mais pour yeneen motif la mais du côté diine Cheikh Bara lan moo indi tey jamono ji soppeeku ba kilifa yi bàyyee askan wi seen bopp ci daal ñu libre tànn ku leen neex ku mën a ñëw sëriñ bi dina la dalal ñaanal la waaye foofu lay yem ak yow lan moo indi loolu. waaw ah, sa thème bi am na solo parce tolloon tolloo na actualité di ñaanal Alaaji Abdou Aziz da baax suñ borom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem mais man pour man. Euh, loolu moom est-ce que mas naa xew xam nga est que mas naa xew sax laay wax est-ce que mas naa xew yi tamit parce que tey euh, mën ngaa wax ne euh, sëriñ jël ndigal joxe ko pour ñu wateel nit li fi jaar ci ay élection li muy bari bari boo ko ci doon wàññi da nga naan benn wala ñaar wala ñett ci en tant que xalifa général yeeg yenn sëriñ yu mag yi nga xam ne seen vote dafay maanaam seen seen seen seen kàddu de engagé comité wu lëm bokkut ak nag ab sëriñ bu am am mbooloom ne maanaam jël position boppam loolu moom bis bu nekk mi ngi am parce que kooku mën naa nekk affaire boppam lay wax tari daayira boppam wala mbooloo boppam waaye nag lu mel ne tey Touba wala Tiwaawan wala Njaasaan wala Laayeen ga ñu ne ndigal jóge na ca xalifa ba waaw ca porte parole ba jëm ci njaboot gi lii lañ bëgg ci wàllu politique loolu li muy am Sénégal bëriwul ndax sëñ abdulaat nos na koo def jàpp naa ko bu bu amee ñaar ba ñett sax moom tamit du du yomb a gisaat donc loolu moom tàmmuñu di ko gis waaye liñ tàmm a gis mooy maanaam Macky Sall wala Ablaye Wade wala Abdou Diouf comme président yi fi nekkoon maanaam euh, am luñ def loo xam ne dëgganut ci diine te nga ragal ko ne ko lii kat dëgganut ba noppi bëgg a wëlbati say aaya ak say xadis ba mu tollook li mu def loolu moom bis bu nekk ñu ngi koy gis Euh, te lu jiitu ñoom ab Diouf it noonu la demee woon parce que buur yi fi nekkoon liñ daan def yu bëree bëree bëri dañ ko daan daganal xarab Samba Sadio rek ay sëriñ ñoo ko ñoo daganaloon mbir ma ba am ba sëñ Tubaa amoon ci werante yu mag yu werante woon ak borom xam-xam yooya ne leen li ngeen ko li ngeen ko def toppee nii du dëgg parce que te loolu ay borom xam ko defoon loolu daa ci réew mi léegi nag sëriñ si nag niñ ne tekk ci élection yi ak su nag élection 2022 yi am na ñaari élection sëriñ si defe naa ne dugguñu ci. 2019 ak de 2012 sax nag 2012 bi fi wàdd yi wàcc. wàdd defe naa dafa won nañ ne sax lim am Touba ak ni fu ko waa Touba tegoon danañ jël position jëm ci moom waaye nag sëriñ si moom xëy na benn benn benn benn cat laa ko mën a waxee mooy ñoom duñ dul communiquer ci seen bopp. comprendre nga tey boo doon wër ci Facebook bi paas paas boo xam ne sañ Bay Si Mansuur a ko moom wala xalifa laaye doo ko gis doo gis tamit ay telegram wala ñu ne kii moo sarse communication wu xalifa bi comprendre nga di di di jubbanti wax ak di jubali wax du am te moo ne ministre boo jël wala kilifa goo jël niveau bi nit ñi bi kilifa diine gi toll ñoom tolluñu fa waaye benn ministre wala benn kilifa gu nangu maanaam amoo sa taskatu xibaar ci sa wet am sa page Facebook am ñoo xam ne ñooy ñooy véhiculer say message ak di défendre say say say say idée ñëpp a ko am am ne sëriñ si nag ñàkk googu ñu koy ñàkk am nag dafay jur léeg askan wi dañuy tabax dara ci seen bopp dem ba mel na lu nekk fekk mësta nekk fii ne sëriñ si ay élection jot ñuy sot sotoo kenn pour mu falu wala ñuy sot sotoo kenn pour du falu amul par la preuve rek man mii di wax ak yow at yii yëpp maa ngi fis lool ci politique bi tuubaa gi ma dëkk amut ci commencé ko ci xalifa général de Mouride ba ci ka ca gën a ka ci gën a nekk euh, gone damay damay toog ak ñoom ñuy ñuy waxtaan ci leneen la ñuy wax lu bokkut ak nii ngay doxee ci politique wala bul doxee nii ci politique dégg nga am na sama dañ may bu ñu la nuyoon mën nañ laa laaj ana sa waay yi ma ne ko mi ngi fi jeex na amut leneen lu ñu ciy wax baax naag bon naag loolu te ñi bokk pouvoir tamit di fa dem leer la ma ne noonu la demee te mas na maa dem ci sëñ Bas Abdou Khadir booba mooy bi may génnee kaso rek jour bi ma ko njëkkee seeti ma ànd ak sama famille yëpp booba ànd ak mu ngi ci seen YouTube bu Cheikh Daalif daf na maa wax lu clairement ne ah man de yow mii xam naa fi nga fi nga féete keneen ñi fiy ñëwit xam naa fi ma féete waaye nit mësumaa toog ak nit ne ko jàppal diw ci politique wala bàyyil diw ci politique daane loolu góorewuñu li la fi indi te boole ñu man xam naa ko mooy sëñ Touba saa yoo fi ñëwee nag ci loolu la ñuy waxtaan ak lu ko jëmee kanam ak lu ñu ciy defar waaye ñii lañuy def ci politique ak ne te yàlla xam na ne loolooy dëgg bu ma masee toog ak sëriñ man ci sëriñ yi may fenekante yëpp su fa waxu politique jógee rek man maa ko wax man maa am yitte ñoom ñu wax ceeg man te beneen beneen seede bi ma la ci joxaat ma sëñ Seexum sëñ Saaliwu Ousmane Sonko dafa am bi ñu ko téye dafa am ñu fa dem. naan ko jàppale kook dañ koo jaay doole rek nanga mu ne leen Ousmane de bu ma ko doon jàppale ci politique it maanaam noo ko ciy jàppalee sax dama ko doon xam ndax mësta toog ak man maanaam wax waxu politique te loolu pourtant boo gisee mu dem fa demati fa da nga naan kon da jàppale kon moom la faral moom la yow yaa ko jàpp rek mais loolu amul sëriñ si moom vraiment <coughs> am nañu ko apprécier maanu gi ñu maanu ci yenn affaire politique yi xëy na am na ñu koy jàppewaat défaut parce que dañoo war di wax nangam amee mais ñaar yëpp mu ngi ci mais li wóor daal mooy mbirum politique moom ak kilifa diine réew mi tiwaawoo nag tuubaak ndax li ma wax nii maanaam ku bokk ñaseen nga bu ñëwoon mën na ko wax ku bokk tiwaawoon bu ñëwoon mën na ko wax tiwaawoo nag ñëpp koo ci jëloon tey maanaam mbirum politique yi daw moom maanaam tekk lañ ci def maanaam duñ ci duñ maanaam euh, taxu leen cee dugg daal ba ci sori yenn sori yi comme ñun niñ ciy def loolu moom man noonu laa mën a témoin bu dee nag lii maam Abdou wax moom soppi aaya ak wëlbati moom maanaam sëriñ si euh, euh, politicien bu ne moom am nga sa ustaas ak sa kilifa diine ci sa muy wëlbati muy wëlbatee ka taayee ka mesuré comme Ismaïla Madior waaw <coughs> ci nga korog bi Amadou Ba di wàññeeku ñu naan Macky koy dalal da ngay dégg ay manipulation ñu ne sëriñu sàngam moo ca dox ba joxe ordre yooyu mais après boo gëstoo dangay xam ne li Cheikh Bara wax dëgg la dañuy waxloo sëriñ si lu nu waxul waaw waaw loolu de mais ni ñu koy waxee yow danga koy gëm parce que comme ñoo bokk fu ñu bokk ak ñoo bokk yu bari yoo xam ne mënoo ci dugg mais la boo doon ba sëriñ sax mun na am danaa la yóbbu ko euh, suma yóbbu. waaw jërëjëf Omar am na solo xam nga da nga indi loo xam ne actualité la te sëriñ Abdou dafa bokkoon ci régulateur yi nga xam ni jàpp nañ ni saa yu a wax rek am na lu fu réew mi toll te saa yu waxaan na kàddam dafay am effet man nag jàngat bi ma ci am mooy bu njëkk dafa am benn tele bu fi nekkoon. te ma jàpp ni bu njëkk it léegi ni sëriñ si fatoo bu njëkk sëriñ si daawuñu fatoo noonu fii bu yàggul Ousmane Sonko jógee ne fii Dakar am ku muy seeti ñu làkk sëñ bi signé ci ab signature am maanaam bu fekkee ne da ngay dañuy denc sëriñ si di leen di leen di leen di leen làq naan dañoo fatu même émission yi war a am sax ñu di ko seetaan ñu privé leen ko ñu ngi nii ku mel ni sëñ si di nga xam ne moom day toog taal wal fajiri di seetaan kooku lu xew ci réew mi mu xam ko dina mën a àddu wax ci nanga waaye su fekkee ne sëriñ bi dañ ko dañ ko nëbb lépp mën naa am nga sikk sëñ bi fekk sëñ bi dafa yëgul lu xew des fois ñu ne sëñ si yëg nañ la xew fekk duñ yëg li xew li ñu yëg nag mooy man li ma doon dégg ñu di ko ruuma daal fan yee naan am na ay kilifa yuy dem ci kilifa diine yi dagg ay vidéo Ousmane Sonko di ko yóbbul naan leen gis ngeen ko de li ñu leen wax ci moom mi ngi nii nii la mel nii la mel léegi loolu su fekkee am na te sëriñ bi ci loolu képp la sukkandiku mën naa am jàpp njàmboram toog ci bu xam mais bu njëkk sëriñ Abdoul Aziz mi nga teg bi muy dem di kalaame Abdou Diouf Lambada moo ko gisal boppam ci télé bi ñu di ko teg. mu jóg dem pale Abdoulaye soxla ñu ni ko góor gi kat Abdou Fatana mu ni duma fi jógee te gisuma ko. ministre yi wax ko ni ko góor gi ñëw na pour seet la bi mu ñëwee dañu ko mënoon ngaa toog rek soo woote woon li nga bëgg faju mu ne ko damaa bëgg a ñëw ba nga xam ne yitteel na ma fecc moomu ñaan Lambada laa bëgguma dakk Abdou Diouf laaj ministre luy lambada ñu ni mi ngi ci télé ñu di ko teg loolu ak fam ci jaar ak lam ca def lépp kooku da ngay xam ni boobu benn xool waaye fi amoon sëriñ si di xool léegi nag bu dee dafa am lu ñu nëbb sëriñ si mën naa am lu bari duñ ko yëg li mu wax ci aaya alxuraan yi bërki dem ba dégg nañ fi ko fi toog ni la baridin wala wala wala wala karimin mooy karim munta ñàkk ci ci ci yëfi te wax dëgg yàlla ca saasa laa loolu yàlla waxu ko amul ci alxuraan yàlla waxul loolu ni waaw waaw fexe nañ ba wëlbati ko ba dugal Karim te Karim gi te yàlla aaya bi dafa waxul woon loolu sax ci leneen la jëmoon kon yooyu baaxul Omar aaya yàlla yi nañ ko bañ a soppi te bàyyi ko ni ko yàlla kiyee bu fekkee ne wax nga ko ni nga ko bëgg li nga ko war a waxee te teg ko ci dëgg ku ne da ngay gis sa bopp aaya moom fu mu waxee boo tiitee rek jàppal ne yow lay waxal loolu mooy alquran hmm. saa yu digg alquran tiit rek loolu mooy alxuraan moo tax nag kilifa diine gi toog moo xam ni ko sëñ Baara waxee opposition beeg pouvoir ku ñu ne am say oustaz ñuy taayee di teg mais li ñuy taayee buñ buñ ko jaaroon fi ñu ko war a jaar dinañ am ngërëmal yàlla buur bu bëgg dëgg dana leen bëgg alxuraan nag moom xajul ci nopp ni ko Sonko di waxee aywa. xam nga maam Abdou yàlla na sunu borom dool ay leeram nga mm. moom moom eh, da daan taxaw jàkkaarloog doomi soxna yi ni moom wax leen dëgg te loolu xam nga mooy ki nga xam ni moom moo ko manoon waaw mu nekk nag loo xamante ni bii lu am solo la mu manqué fi aussi tamit lool waaw ci jamono ji nga xam ni moom lañ nekk nii sëriñ yi nag moom léeg-léeg wax dëggu fa yàlla dañuy nekk ay victime ci lu bare bare bare parce que yow parents yi da ngay defee ne sëñ bi yëg na lii fekk ne sëñ bi yëgul lool loolu moom day am te politiciens yi xam nañ loolu xam nañ ni sëñ bi di jóg di weddi ren saa yi nag ci loolu la ñuy profité di manipuler ñoom it politiciens yi dañuy profité ci lëndam googu nga xamante ni mi ngi ci diggante bi diggante taalibe yeeg sëñ bi war na xam lii war a warta xam lii war a kii léegi politicien bi moom ci loolu lay utiliser moom saa yu génne mooy dalay xamal ay ñoom man ne sëñ bi moom xam na lii waxtaane nañ lii ku lii te sëñ bi du génn digg maanaam soxlawut sax parensaay di ko wax mais ay gest la rek dugg génn loo jour sebaara bi mi ngi fi doon wax yu am solo ñoo xam ne dem nañ seeti di nit génn te fekk ne am nañ dogal yoo xam ne après moom lañ cay teg léegi nag dugg be génn bi rek la soxla waaw dugg na génn na dem na fële wax lee ñu ne ah kon dem fële la jóge woon wax na lii waaw sëñ bi moom comme que waxante wutoo ak moom loolu du fi nekk di weddi waaye moom gëmloo na ci nit ñi ci image ne leen lii may jël kat diw mii laa seeti ji woon balaataan ma koy jël ñëw naa fi wax naa lii waxtaan kon maanaam même bu la waxut waxtaan na ceeg moom léegi nag ñii seetaan ñoo naan wax na ceeg sëñ bi te fekk ne waxu ceeg sëñ bi donc sëñ bi sëriñ yi parfois victime la donc moo tax tamit jamono buy dox. même bu fekkente ni dafa am ñoo xamante ni li nga wax noonu suggéré noonu loolu lu am solo la pour mu daal di am ci kër sëriñ yi parce que jamono day dox communication mën na defar mën na yàq lu bari donc nag lii ci bari war naa mën a am ñoo xamante bi ñoo yore communication sëñ bi méngoog jamono nga xam ni bu yenn yi amee du sëñ bi mooy ñëw di wax mais fa la ñuy jàlle def communiqué wax ni yëf yi lii la bu ko defee mu daadee leer ci bopp taalibe yi waaw bu ko defee ñi leen di tuumaal danañ moytu mhm. waaye mais pareen saay da ngay gis ni moom ñu ci bari dañuy utiliser def yenn yoo xamante ni bi méngoo wut ak lañ wax ak sëñ bi kii wut mais nañ fexe rek ba dugg génn euh, taqal ko ci waaw yooyu mooy am ñoom dañuy photo def vidéo waaw xam ne image bi du wax dara quoi image bi du wax léegi nit ñoo koy interprété ah. waaw waaw yooyu la ko il faut que ñu ñu ñu loolu moom mu daal di am incha allah. yow tuuti rek ah. jeex na ah, kon mi ngi noonu la sëñ Babacar si. waaw la sëñ Babacar doon wax rek nee na ñaari ñaari kaddu ñaari baat ñaari baat moom am ne bi ngay sànni ci urne bi ak bi nga yor nee na bi nga sànni ci urn bi moom boobu mën na wax ci bis bi waaye boo paree bii na ko tëj ba résultat yi génn boobaa loolu lay wane influence woo kenn quoi. waaw euh, yow loo rëy rëy rek benn benn carte nga am kon yamal sa benn carte kon ajaratu di ñaanal euh, maam Abdou ak kilifa diine yi ci réew mi yëpp ñu fi jógee suñu boroom yokk seen leer taas ci barkeem ñu fi des seen bàyyi maanaam yàlla suñu borom bàyyi leen fu ñu gën fi yàgg mm-hmm. waaw parce que aussi fi ñu tee réew mi aussi tamit baax na parce que mooy tax réew mu am équilibre te équilibre dafa am dafa baax kon euh, mi ngi noonu am na solo mm-hmm. balaa pajum cosaan ñu ànd ak partenaires seen boutique solution ci njiital alaaji Sanjoogu Mbeng ak Sohaybu Jóob ngir dëggal ak a wéral ni suñu garabi cosaan yi lu wér la li waral seen boutique solution juddu ngir jële fi bépp xeetu caay-caay ci wàllu fajum cosaan ndax nit lekk alalam joxe ay garab yu wérul looloo waral ci diirum ñaari at yu manqué tuuti seen boutique solution di def ay résultats yu ama am solo biir réew mi ak bitim réew ci garab yi ñu leen di bëgg a limal ndoxum siit yi amuñu ci moroom hémorroïde bi nëbbu ak bu feeñ góor gu néew kàttan ay garab yu wóor te secondaire moytu leen garab yi ndox yi estomac dañ koy faj ba mu wér garabu asthme bu efficace même boo amee woon asma bay piqué crise ñëwal fii ci boutique la solution bépp xale wala mag buy gént di tuur ndox ballottement tànk buy xar ba borom mënta sol ay fermé li jaaxal àddina bi yépp nag muy raay mu sedd bii ne ci boutique la solution lépp luy douleur ci yaram boo koy raay mes lay def am yeneeni mbir ci biir nag moo tax ñu naan ko raay mu sedd plus jaloore ak résultat yu la boutique solution di def tax na ñi ngi fépp ci bitim réew am na ca France États-Unis d'Amérique Canada Italie Espagne ca Gambie ca Angleterre Allemagne ñoo ngi en face Walfadjri ngeen mën a jot boutique la solution ci 78 426 66 77 wala 75 630 50 50 boutique bi xaatimul listixaarul seetul su ngeen bëggee dégg-dégg daal ba boutique la solution juddoo la jaay garab yi bon ak naxaate jeex. ñu leen bu baax a baax boutique solution la ñu àndal moom mi ci garab yu baax yi àllaaji macha allah na nga ko waxee soxna si noonu la demee ajaratu béti mbuub sénégalais yi ci seen jëm bopp taamul nañ ko seen bopp daal di ne boutique bi daal ginnaaw bi mu ñëwee ba naga ni ñi ngi gundaan ndaat ak ndaataata la ay ca mi ngi noonu kon nag daw leen songi boutique bi mi ngi jàkkaarloog Walfadjri ñu dem jëli pajum cosaan kàddu gaa ngoog jërëjëf ajaratu Betty Mbow ñu am mbégte di am kontante di del seeg yéen seen rubrique bu mag bi nga xam ne moom lay wax pajum cosaan ñu ci ànd ak Cheikh Bara Ndiaye borom def gis di ci waxtaanee lépp loo xam ni dafa jëm ci wàllu pajub cosaan waaye it di ci waxtaanee ci lu jëm ci li nga xamante ni bi moom la ñuy wax actualité ñu bari dañuy wax ne bu bis bi jotut alxamis ngir ñu xam li ci pénc mi day jafe ci ñoom faaw ñu déglu ko seex Bara gindi leen ngir ñu mën a xamana fan la ñuy teg seen tànk Cheikh Bara njaay borom def gis ñi ngi lay nuyuwaat. aùzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala falaa taxlamu nafsun maa jasaan bi maa kaanu yamaluun maa ngi lay nuyu alaaji Sa Ndiogou di nuyu ñu bokkal plateau bi di nuyu doomi Sénégal yi ñuy seetaan ci réew mi ak bitim réew di ci nuyoo yi ak siyaara yi Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa général de di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te may ko kattan ak wér di nuyu suñu wayjur wa ca kër ga di soxna Bali Mbacke Mountakha ak euh, sëñ Abdou Samane mu seex Sohaybou di nuyu sëriñ Basiru Mbacke mu sëñ Abdou Khadir di nuyu sëñ Abdou Khadir njaay xalifa seex Darou Assane di nuyu sama sëriñ Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu seex Sidil Mokhtar di nuyu soxna May Mbacke bintu Cheikh Sidil Makhtar di nuyu sëñ Abdourahmane Mbacke mu Cheikh Abdoul Aziz Baara di nuyu sëñ Cheikh Ndiaye ak sëñ Jili mu Cheikh Sidil Makhtar sëñ Abdou Samad sëñ Abdou Latif ak sëñ Modou sa Mbacke ak mboolem njabootu Cheikh Sidil Makhtar gépp di nuyu Moulay Xasis Guèye bu baax a baax di koy ziara di nuyu mboolem ñi ñuy seetaan fépp fuñ mën a nekk bisimilah. jërëjëf Cheikh Baara Ndiaye borom def gis macha allah Cheikh Euh, dañuy tàmbalee mbir mi daaru musti <coughs> daaru musti Cheikh Baara daaru musti moom dafa mel ni yëngal ngeen ko waaye yëngal na leen dafa mel ni ba ngeen demee foofa ca daarul musti euh, am na loo xamante ni bi xew na fa dégg nañ euh, kàddu yi nga xamante ni yëkkati nga ko ci ak tàngoor mu mel ni daal am na loo xamante ni bi metti na la lool ci ki tey nag ñu daal di ñëw ngir ñu expliquer waale ñu mbir yi ci dal bu ko defee sénégalais yi gën a mën a comprendre ana lan moo xew ca daaru si lan moo xew ca daaru musti Cheikh Bara waaw daaru de euh, dañ fa dem maanaam parce que dañ doon def dañoo amoon benn euh, idée bi nga xamee ne dañoo jàpp Ousmane Sonko ak Diomaye fa yëpp ñu nekk ci prison bi campagne bi tijj ñu gis ne candidat yëpp dinañ campagne mais ñun candidat yi ñu bëggoon ñu campagne duñ campagne hmm. ñu amoon idée nañ ñun nañ wut suñ cortège defar ko pour mën a wër Ndakaaru dem Ndar ñu am ñu ci dëkk Ndar ñu ne nañ dem Ndar après léegi ñu def noonu pour ñu campagne nga xam ne tëj bi ñu tëj Sonko du ci feeñ loolu moo ñu indi loon ñu def karawaan boobu wër nañ fu bari nag ba ñëw euh, département Kébémer bi ñëwee département Kébémer dem nañ Kébémer ci boppam jóge fa ñëw Sagata ci guddi gi deux heures du matin ci lañ dugg Daaru Moxti bi ñu ñëwee daje ak euh, doomi daaru yi di def manifestation di def karawaan bi ñu demee ba ci taxaw ci benn rond-point euh, li njëkk am mooy dafa ñu fexe woon ba am benn xale bu jigéen bu ànd ci mbooloo mi mu kidnappé ko moom Diagne Fada ay gardam ñoo ko jàpp dugal ko biir kër Diagne Fada waaw kidnappé ko nangu or yi mu takkoon tekki jaaroy nopp yi jaaroy loxo yeeg yëpp mhm. tekki li ne di mu yoroon fuyee saag bi bàyyi ko mu dem man bi ñu ko jàppee am na ku ñëw ma jàpp nañ benn xale bu jigéen boo xam ne ci ñun la bokk. mu hmm. ngi ci kër Diagne da ma ne leen bu ñu demee di ko jëli day indi coow. parce que hmm. fii ñi fi nekk dafa bari ci mbooloo bàyyi leen mu jàll. duñ ko rey duñ ko def dara suñu paree danañ ko lijjanti. Hmm. ñu toog ba mu yàgg ñu ñëwaat ne ma xale bi génn na bàyyi nañ ko. léegi ma ne leen identifier leen ma xale bi nu mu tudd ak yépp su ma paree ma enquête ko pour xam naa lañ ci taxawee. su ñu defee lañuy def ba pare ñu ne léegi nañ dem dem Touba fanaan yi bi ñuy ñibbi. dem ba tolloog mbeddum kër Diagne Fada Diagne Fada dëkkul ci kaw tali bi par exemple mbeddu mbedd dangay ñëw ci kaw tali da ngay wàcc ci mbedd mi dugg ci mbedd mi lu sori moom mu bàyyi këram ñëw ba ci kaw tali bi gaare foofu benn oto nëbbu ko ñetti oto sax la gaare nëbbu ko nëbbu oto yi taxaw noonu ci koñ bi doo ko gis parce que mbooloo mi day bari mm-hmm. bi mu ñëwee ñuy dawal oto journaliste yi romb na oto bi yoroon sono bi romb na oto yi di romb mais man la taamu woon ak ki nga xam ne mooy coordinateur Pastef Mm-hmm. muy ñaar ñi ko gën a sonal kon xëy na man maa fa indi mbooloo ma xëy na ak ñi ko doon coordonné mm-hmm. dégg nga Mara Niass mi ngi woon ci sama oto parce que booba ñi ngi karawaan ba ñi ngi ñibbi mais ñi ngi toog ci kaw oto yi mm-hmm. léegi damaa jékki-jékki rek jub mbedd mi rek benn oto génn daw sans rek taxaw ci kanam digg tali bi hmm? mënatumaa dem fi ma taxaw da ngay feree ne nga feree ne rek beneen oto bi ñëw bëgg a foncé ci sama kaw oto bëgg a ci seen sama kaw oto waaw léegi mais sama safoor bi mu freiné dafa am suuf xam nga mbedd yi day yaatu ta Tuuba ak daaru yooyu mbedd yi day dafa gaaw wàcc tali bi rek jël suuf si looloo tax oto bi deuxième bi mu ñëwee foncé fekkuma fa ñu jël birig ja brique laa ko mën a teg waaw fi may toog mooy mooy xam nga ci ginnaaw laay toog ci ginnaaw fi may toog waaw boo demee vitre bi dañ koo toj parce que foofu la yenn brique mais ma heureusement man bi ma leen séenee damaa wàcc mais tooguma foofu tooguma ci kaw tooguma daal waaw mu dóor bi gisuma mu xool gisuma man maa ngi koy xool. Mhm. maa ngi tëdd ci biir oto bi di ko séen mu ñëw dugal bopp bi séen xool. gisuma boobu yaa ngi tëdd ci oto bi damaa tëdd. Mm, dama bi ma wàccee au ma toog parce que mm. xam naa ne man la ñuy dàq. waaw damaa dem ci kanamu oto bi. ci mm. coussin bi bi ma xa ma foogeewul laa dem. waaw noppi xaw a mel ni ku tëdd. nga xam ne maa ngi koy xool mu ñëw dugal bopp bi. gisuma. boobu yow yaa ngi yor fetal nii. yaa ngi gis boobu maa ngi koy gis kay maa ngi ci kanamu oto bi. boobu kan la kan moo fetal bi. xam naa leen ñoom ñëpp. xam nga leen xam naa ko mu yor garde corps jaañ fada ci boppam garde corps am bu mu yàggal noonu. waaw moom moo yor fetal. di la wër dugal bopp bi nii ci biir oto bi di ma xool gisuma. Mhm. mu dem ci yeneen oto yi gisuma. dégg nga mu dem ci coordinateur bi jàpp oto bi sa sakaase ko toj ko ba mu jaxasoo. boobu yow ànd sa chauffeur. mi ngi ci oto bi toog. ah ah bi mu lay wër chauffeur bi demul. déedéet boobu oto oto bi foofu mënoo daw. dañ leen a bloqué quoi. mënoo daw mbooloo lu ëpp dix mille personnes. boo dawee da ngay mbëkk nit ñi waaw waaw waaw chauffeur bi dafa wàcc yoon wi rek def nii oto ba la ñëw jàll moom jàll jàll amuma léegi nag ñuy ñuy lijjanti nag nu ñu def ba génn foofu diggante boobu ci la ñëw yenn birig dugal bopp bi xool gisuma man xam naa ne bu ma gisoon damay dóor bal hmm? waaw waaw nu muy doyee fetal gi ñëw na ba dugal bopp bi ci sama oto xool gisuma waaw ma xam ne kii bu ma gisoon damay faat hmm. noonu la pare commencé tiire tiire ci kaw nit ñi tasaaroo ñenn ñi yori jaas yi di dóor nit ñi caru jaas yi jaas yi waaw waaw benn pick bi nga xam ne xam nga bu ñuy karawaan ot ab biis lañ yor mais nit ñi ñëwee ci benn dëkk dañuy wàcc biis bi nekk ci kaw pick-up bi waaw pour di tëgg ak di tàccu mhm. léegi pick boobu nag lañu topp nag tiim ko nag di dóor ay jaas yi ay xeer ay jaas léegi ñenn ñi dañoo tëdd ci pick-up bi ñenn ñi tiit nañ daanu ñenn ñi cëppeelu fekk oto pick-up bi day daw waaw ñenn ñi moo tax damm damm am bari nañu damm am ñu seen digg yàqu am ay blessures yu bari hmm? noonu la demee léegi bi loolu amee man Diagne Fada bu dul woon ak sax li ko nit ñi ittee woon yi duma ci wax. waaw parce que Diagne Fada ni muy politique moom yomb naa mu ñal. Hmm. waaw yomb naa mu ñal nit moom bu ngeen di noonoo ba nga dégg ko ci margu ba daanaka jarut sonn. ba nga dégg pax mi la jëm. ba nga dégg ñu la ma ngi ca margo ba jarut sori mi ngi ci pax mi la jëm. Hmm. waaw. soo mere woon nit ci dëkk mu lay xatal ba mu yàgg nga ne diw ma ngi ca margu ba jëm sonnati bu paree ci margu bi ci pax mi la jëm te bu jógee bu demee ci pax mi dootoo ko dégg hmm. yow politique bi mu yor mooy politique boo xam ne nii xam-xam hmm. nii bëgg senegal nii jub hmm. politique boobu dafa yàgg te politique yu yàgg ya dañoo xew mu ngi mel ne nag maanaam orloose yi ñu nekkoon ci koñ yi di def orloose <laughs> xam nga bu njëkk orlosé ñoo aagoon kenn ku ne naan di wéy naan sama yaay nee na naan rajo bi ñu naan walfu bee yàqo mhm. ni ñu xëyee rek maanaam orlosé am mhm. système mhm. ko ci ci xam ngay def film bu rafet bu ne nga jël ni ñëw di luyee di joxe carte d'identité ngay luyee ci naan indi sa carte d'identité xam nga loolu daa xëy rek disparaître waaw politiciens yi daa bëri ñoo xam ne ñoo ko orlosé yam fi ne dañoo disparaître te yëguñu ko beneen système dafa ñëw fay leen parce que ñoom jaañ faada nit ñi politique mooy waaw wut maanaam dem benn dëkku kaw kaw boo xam ne day mel ni comme ay daaru ñoom dëkku kaw lañ koy jàppe ay nit ñu xamul ñoo fa nekk nga ñëw wut ay garde corps wut kër gu rafet wut oto bu rafet maanaam euh, daal daal leen fexe bañ complexe la su élection ñëwee nga ñëw jënd leen ñu wateel la ba mu fees nga ñëw transféré ko état bi ñu jox la ci ay poste politique nga toog saa bu élection jotaatee nga delluwaat da koy def nag muy neex pendant vingt ans mais nag léegi nag ay làmmiñu daaru ñoo fa nekk dégg yàq lépp nit ñi yewu yewu goo xam ne mënatu faa am aw am aw carte loolooy xëtt xol bi ba pare kanamam li nekk ci kanamam dafa lëndëm hmm. mooy moom bu falootut lan lay def amul xam-xamul liggéey ci dara day torox parce que bu liggéeyatul lu muy def léegi nag looloo ko tiital mu jàpp ne maanaam bu nam defoon 2007 parce que bi mu demee ba am ak problème Abdoulaye Wade dafa rey nit ku ñuy wax Mamadou Diop mbokkum làmmiñu daaru mii may wax la frère am la moo ko rey 2007 ko eh, Cheikh Bara moo ko rey est-ce que loolu. moo ko rey da koo ñemee weddi. wala ñemewu koo weddi moo ko rey moo ko rey moo ko rey. moo moom moo doon xeex ak Thierno Lo ci loxoom la deewee. justice ko wax wala li ngay wax ni demuñu justice parce que ba mu ko defee dañ koo nëpp nëppal. nëpp nëppal mu jeex tey nag bu ñëwaatee bëgg a rayaat man dama koy topp ci yoon. Hmm. parce que loolu du du du yoon wi daal du caagi ne doomi daaru moxti yi moom saa boo lu la neex rek léegi rey leen napp leen dóor leen rey leen. parce que nit moom ñaar la yor malet ak fetal bu joxee malet bi boo jëlu day jàpp bu génnee fetal gi am li mu bëgg ñaar yëpp nag du jàll moom bu soobee yàlla moom ku xaw ma fu muy fetaleeti waaye du daaru waxti moom ndax moom danaa ko def ci kaso bi ndax ah, dama waaw ah kaso bi moom ma ko waaye lu waaye maa ko moom dañ maa tooñ dañ laa tooñ waaw waaw ku ñëw fekk ma man jotewu ma ak yow dara nga ñëw jël sa sa sa sa xeer toj sama vitre oto yor sa fetal di tiire ñëpp di ko gis ndax dañoo am suñu vidéo solution TV da ko doon def direct. demal seetaan vidéo yi fetal yaa ngi nii gars yi yor ko di tiire ñuy gis. nga yor sa oto foncé sama kaw oto ñi ma àndal nga dóor leen damm leen gaañ leen. Hmm. kooku bu ñu la tëjul kaso kuy dem kaso. Hmm. day dem kaso. parce que man maa ko léegi yow. maa ko mën a baal te du ko baal. yaa ko mën a baal te ko baal waaw ko bàyyi. d'accord ndax du jël doomi jàmbur yi léegi yow Diagne Fada jokkoo ngeen. lim def lim def. Hmm. xam na ko ba gis nga ba mu paree. boo déggee keroog wax naa ba buñ demoon ci sëñ muntaxaa du ma ko bàyyi nit ñu bari nag bëgg wëlbati wax ji naan lu tax may wax loolu sëñ muntaxaa waxuma ak sëñ muntaxaa mhm. mi ngi mel ne yow mii nga yoreel ma sama xaalis ma ne la fay ma ma gis nga dem ci soxna yi bu ci ci saa njoogu naan ko waxal ak sëñ baara dem ci Omar Gueye waxal ak sëñ baara ma ne la hee boo demoon ba ca Seex Ñas du ma bàyyi Seex Ñas laay waxal wala yow jaañ fada dafa maa def li mu ma def xam ne def na erreur dem ci sëriñ si kenn ku nekk di ma woo waaw mbirum taalibe la bul def déclaration bul def dara ndax maanaam ma ne leen yéen ñii di wax nii sëñ mun taxaa sax laa wax xam nga kon man ñoom laay waxal bu ci duggoon du tax li ngeen def ni wax ni ma def ko parce que lim loolu dafa yomb nit mënoo bëgg a jël bakkanam mu échoué rek nga ne léegi naa dem wuti ay sëriñ ñu def ko affaire mbokkoo affaire collaboration du ko def même bu ma doon woo du ma euh, amut sama numéro mais ñi am seen numéro ñëpp woo na leen. Hmm. woo na leen. woo na leen. waaw bi mu wootee dafa woote woote jëluñu ko ma ma ne waa ji ko. mooy coordonnateur Daaru Mooti ma wuyu ko mu naan ko yéen li ngeen def nu ngeen ko mane mu ne ko ñu def mu naan ñëw sama buntu kër hmm? di fa nekk di di ma dem ma ne ko day wuti preuve bu bu dalay dalay enregistré day bul bul wax ak moom ñu ko peku mhm. parce que dafa bëggoon comme enregistré pour en bu génnee mu ne ñoom ñoo ñëwoon sama kër mais heureusement lii dañ ko doon live ñëpp a ko gis mhm. ñëpp gis li li mu def dégg nga te jël naa photo yi mu yi mu jaas yi yeeg ñiñ gaañ yëpp li ko xaw a certificat médical yi la war a dajale tey. Mhm. pour mën a dem déposer plainte bi oh, ci procureur Louga. mais dama koy topp moom lii moom amul arrière. da nga koy topp dama koy topp ci yoon. doo ko bàyyi waaw bu dee affaire ay baati nag. Mhm. yooyu moom jëru ko. ndax nit moom koo xam ne da dem ba nga xam ne wóor na ma ne man jaañ fa da moom dootu falu. Mhm. dara lu muy falu ku jàngut amoo xam-xam amoo dara xamoo dara. waa Daaru mu seel a jëloon yanu la la ciy fal wàccee nañ la fooy a nekk chef de quartier. Diagne Fada. Diagne Fada xamul dara bi muy toll ci jàng demal xool génneel ati Diagne Fada nga xool ba mu nekk UGTL. Mhm. diplôme amu ko bag dong la yam xamul dara Sonacos fu mu mas a mhm. jaar gis nga biñ bi ab Abdou Macky Sall yéegee emploi fictif yi ëpp ci ci ci ci ci ci Sénégal. Mhm. santé la amoon te moo fa nekkoon ministre. ñoo xam ne da leen def ay ay ñoo xam ne nit ñu fictif di leen fay xaalis fekk amuñu. existé wuñ existé wuñ. ah Cheikh Bara lii du ay rapport la mi ngi nii demal xool ko bi Macky Sall doo ko falu bi ñu defee audit yi. Ah. jii Sonacos. Mm-hmm. Fallou Galas Diagne rakkam. Mm-hmm. la jël defal ko fa ab entreprise ku mu bokkal ndey ak bàyyi laa la wax de. Mm-hmm. mu am entreprise ci biir Sonacos di gagné marché. Ah? waaw marché yu bari booy booboo koy jël. te ñoo bokk sarak mi ngi mel ne yow nga jël sarak def ko fi muy gañewaat marché yi. Ah? moom loolu doo nga la nekk ci réew mi. jërëjëf. Cheikh Bara baax na maa ngi mooma waaw. jërëjëf jërul sax ñi nekk ci di sori jaañ faada moom maa moom digg bëccëg gii mhm. dina xam ne moom moom bu fekk na dëggal boppam waaw bu mu dem ci sëñ muntaxaa bu mu dem ci sëñ kenn ñi may woon di doot naan juboo nan ko nañ ko assumé moo ma attaqué mhm. nañ ko assumé dinaa ko def ci prison bi moom di ko may añ mbaan dinaa ko def bi di ko may añ di ko may sama mbokka mën naa ko yët añ moom d'accord sëñ Ba Cheikh macha allah <coughs> li nga def noonu sax parce que yéen dafa mel ni bu ñu toppee logique bi sax parce que dafa mel ni Moussa Bokar sax moom it euh, jógoon na foofa ca diwaanu Wuro Soogi moom it yamale na commerçant Wuro Soogi ya ba commerçant ya daal di dajaloo léegi non mais safar Bokar kaddu yi nga xamante ni bi yëkkati na ko. Moussa Bokar noo jàngatee kaddu Moussa Bokar. Moussa moom nit ku cohérent la moom. nit ku cohérent. dafa cohérent. waaw ku ku ma neex la dafa cohérent moom. ah waaw ah oui. waaw. Hmm. Ah nu mu cohérent. cohérent gi mooy. Hmm. Dakar Moussa Bokar ministir lañu am. waaw. Moussa Bokar ministre. waaw connexion bi moo ko yore. saa bu meree dagg. Mhm. TikTok. bi meree daa dagg TikTok teg ne. waaw Walfadjri bu tegee reportage bu ko neexut. Mhm. mu ne coupé signal bi. waaw kookoy Moussa Bokar ministre. Mhm. Moussa Bokar ministre moomu nag. moo jóge fii ci dakaar dem ba wër a soogi nag nekk fa Moussa Bokar maire. Moussa Bokar maire. nit ñi bëgg a wote fu ko neexut. mu ne bu ngeen watee. ma dagg seenub signal. Moussa rek benn Moussa mais dafa cohérent moom moom Dakar mooy Moussa am Dakar mooy Moussa am Rasul hmm. parce que nag yow boo demee ba fekk sañ moroom yi baay waaw say mag say najaay hmm. yoo xam ne jëndaloo leen kër jënd joxoo leen ab dërëm yow simple maire nga waaw maire waaw laa wax de doo hmm. doo fa doo fa procureur doo fa dara <laughs> nga taxaw ne ku defut lii ma dal sa kaw waaw loolu maanaam musaa da ngay war a laaj moom est xam na ne ci république la nekk nit ki sëñ bi carte voté bii la am nga ne ko carte voté bi day nekk ci sama intérêt. Mhm. wala ma dagg. su ngeen ko defee bu ngeen watee fenn dinaa ko xam dèjà rek loolu rek lañu war a njëkk a lijjanti ku watee nu mu koy xamee. lu mu am ci bureau de vote yi mhm. mu fa am bañ ko watee mu xam ko. Mhm. dèjà nee na ko watee ma xam ko su wat bi jaarut jëmut ci Amadou Ba man sa kaw. na jëm ci amado Ba ñu ne ko lu tax mu naan pour a soogi daa am ministre maire. Ah. looloo gën a neex ci wax ji nag. Mm-hmm. nee na ministre ak maire daa am Ouro Sogui pour Ouro Sogui continuer di am ministre maire da ngeen di wate ci Amadou Ba mm. <laughs> <laughs> mais da ngay laaj Moussa Bokar maa en tant que homme de droit quoi ku jàng droit maa am république quoi nga taxaw di wax nit ñi wax ji ba pare maa ak ful la jeeg yére yu ëpp yi bu ko boole <laughs> fulla gu bari la ci boole. non da nga kii. Ah. moom nu ñu def ba mu nekk ab ministre. ñe la ma la waxoon fii rek. waaw Moussa. bu doon moom moog Diagne Fada yem rek. Ah. musaa moom amuti nit amut dara xam nga lu xewa ah. maga may xaritum Macky Sall magam ju jigéen. may mën a càmm. moo ne Macky euh, place rek ñu wutal ko as place mu toog. mu toog waaw wax sax mënu ko. lu jub sax mënu koo wax. loolu donc ko fi indi. léegi nag nga ne noonu lay waxeeti. <laughs> <laughs> <laughs> karaa karaa ko ci loolu. léegi nag noonu la def eh? léegi nag lii nag lii ngay gis nii nag moo war a jeex si réew mi. moo war a jeex koo xam ne amoo xam-xam. Mhm. amoo compétence doo patriote. bëggoo réew mi xamoo sax lañ la dénk. Mhm. ñu jël la teg ñi ko am compétence. da teg leen fee jël ay yambar yoo xam ne xamuñu dara teg leen ci place yi. Mhm. ñuy foyee réew mi lii moo boole ko Sénégal. moo tax il faut nag ñu taxaw pour jëlee fi ñii ñëpp teg fi nit ñoo xam ne place bu mu mën a doon. ka ko yore. moo ko war a yor suñ ko defee rek réew mi dem. d' accord jërëjëf Cheikh Bara Cheikh Bara dañuy ñëw nag yegg ak yow ba foofa ca diwaanu Mbacke. Mhm. Mbacke dafa mel ni démb def ngeen fa mobilisation foofa ca diwaanu Mbacke am na ay discours yoo xamante ne bii jib na fa euh, kii bi naka la demee ak nag la ngeen ci doon séentu mel na ni waylaa naka la yëf yi demee dëgg-dëgg. waaw léegi daal. Mhm. maanaam. du mitin du karawaan lu kenn xam. Hmm. waaw la. lu lu ma xamut sax man. loo xam waaw. Jomaay Fay. Hmm. ci boppam xamut lee lan la. xamul lan la garde corps yi xamuñu ko maanaam dëkk boo xam ne gis nga quatre-vingt pour cent ci ñi ñëwoon sax gisuñu Jomaay. gisuñu ko mbooloo mi ngeen gis ne ñu wër ko noonu dañoo dox ba ci ja ab benn benn bayaan rek ñu taxaw. la ëpp ëpp ëpp ci nit ñi nekkuñ fa woon ña nga woon ci kaw tëli ba ñoom di tëgg ko fecc. Hmm? Mbàkke amul li fa am démb amul leen benn ndaje politique bu mas a mobiliser lee amul. lu mel noonu. waaw lee moom kenn xamul lu mu doon. dégg nga bi may doog a ñëw taxaw ci buntu Mbàkke. nit ñu bari loolu ñu taxaw foofu suñ seex coro téléphone ma ne ma da ngay génn nga ñëw ca beneen côté ba. Mhm. fa kër ba kër kër kër Baye Fall fi ñu tabax. waaw mu ne ma foofu la nit ñi nekk. ma ne Mara seex coro nee na fii amutin seex Mara dana ne ma li muy wax xamu ko <laughs> nan taxaw. <laughs> Ah. xamut li muy wax fii la ah. nit ñi nekk ma ne ko fi ñu demaat ñu ñu wàcc mbedd yi wër ba yegg foofa mais ma mi ñuy ñëwaat bu ñoo sax yegg si hmm? voilà man jomaay fii ne dañoo séenante ne nii rek séenante nii loolu moom kenn xamul lu mu doon loolu tax nag gis nga démb maa ngi sant suñu Cheikh Thioro parce que amatub diplôme waaw du at yi hmm. du expérience politique parce que mi ngi doog a milité wu ci parti waaw dégg nga hmm. ñu naan ay jomaay amut expérience sax nañ xool ci loolu waaw li mu def démb muy bëggee yëg sëñ Baara Doleeg. mit poli maanaam bépp leader politique bu ne. Mhm. Moustapha Cissé Lo ku ne am nañ ko Touba. ngay def politique. Mhm. mais réussir lee. Mhm. ci sëñ Cheikh Coro lañ njëkk a amee. musta musta am. du ndakaaru du Kaolack du Njaareem maanaam mobilisation bi gën a rëy kay ci ci histoire Sénégal démb sëñ seex Coro ko def. voilà loolu nag kon day wane. a rëy fi ñu taxawoon la fa nekkoon ndaje foofu rek moo ëpp ak apes te lu ma taat ñett mbooloo mi ña ngi ca mbedd ya ñoom maanaam mi ngi mel ne ñu toog fii. waaw ca Castor. waaw nit ña nekk fa ñoom di way seeni i way seen yoon ci jomaay ña nga foofu taxaw di way seeni i way. di way yëguñu sax ne jomaay mi nga doon def discours. Hmm? yëguñu ko parce que mbir mi kenn mënu leen a dajale. loolu lu am démb la lu kenn xamul lu mu doon. léegi nag moo tax. élection bii di ñëw. Mhm. Euh, Amadou balaa yërëm. Amadou Ba waaw lu tax nga ko. parce que Amadou Ba mi ngi dajale ay mbooloo. non gis nga révolution bii am. révolution ak coowul Ousmane ko léeg fii patriote yi toll ak nit ñi ni ñu bëggee Sénégal Sénégal bi mu bi ko yàlla sàkkeeg léegi jamono jii la ko nit ñi bëgg nag. Ah. maanaam mbëggeel gi ko bëgg nii. maanaam ah. Sénégal musta am jamono bu ñu ko bëggee nii. Hmm. nit ñi Sénégal lañu bëgg. ku dajeek nag di jéem a contre loolu. waaw waxuma la non seulement doo am li nga bëgg. waaye yow maanaam Amadou Ba crédibilité crédibilité bi mu tabaxoon ci yaa cinquante ans yi jàll. da koy ñàkkaale moom day dem day demaale. day ñàkk day ñàkk réew mi ba noppi ñàkk crédibilité am moom ñi ko wër ñëpp ñoom farbaak ñëpp bu ñu paree. Mhm. aw xeer dootuñu ko doon ci réew mi. parce que ah dañ dul dañoo dajeeg ab benn révolution ñoom ñi ñam mal sensu di ko jéem a baare. Mhm. loolu moo am te Amadou Ba. sénégalais yi maanaam moom li koy xañ réew mi daa bari. Ah. daa bari gis nga mënuñu ne mag sénégalais yi danañ def benn benn erreur mooy Sénégal ñu ne Macky Sall day wàcc. Mm-hmm. ñu ne magam la ñuy fal. waaw dèjà loolu rek argument la boo xam ne moom. erreur <laughs> boo xam ne moom ñu naan ay jomaay léegi laa loolu nañ taxaw ci loolu. Mm-hmm. mag Sall folli nañ ko fal magam. fal magam fal magu Macky. magi Macky Sall loolu mënut a nekk. sëq sëñ sëñ Abdou Aziz da baax mii bi mu fi jógee. waaw ku ko gën a néewi ata toog Tiwaawan. waaw sëñ Saliou ba jógee Touba gën a néewi ata fa toog. Mm-hmm. <laughs> mën a xalifa xalifa xalifa général sax ku leen néewi ata leen di doon. yow ñu bëgg a folli fal magam. fal magam Abdou Diouf. Euh, Abdoulaye Wade biñ ko biñ koy biñ koy wàccee. mais mais mais Cheikh Bara fal magam loolu boo waxee. loolu xaaral ma ñëw rek kon léegi jomaay même boo ko faloon kon Sonko du mën a ñëw. déet defal ndànk ma ñëw rek. Hmm. ci màggat gi. dama ah, lay wax <laughs> waaw d'accord ma Abdoulaye Wade Macky Sall ñi nga xam ne màggat na nga bëgg a jël xam nga ne yow Habib Seck ak euh, Habib Seck euh, kii ñoom ñoo maase. ak ak ak Amadou Ba. ak Amadou waaw. mag ab maanaam ab Amadou Ba at yi mu am dañu laaj réew mi waaw. Ablaye Wade rek a commencé am laaj ñum réew te bañ koy wàccee néewuñu ko da ngaa liggéeyu dañ ko ne da ngaa màggat. Amadou Ba am na 74 ans. soixan non mi ngi ci. maamu ko soixante moom ak Macky Sall te Macky Sall ngi ci 63 ans. est ce que bokk ñu année 63 waaw kon kon kon kon ma ngoog Ba daal li ma la mën a wax ci gàttal laa wax. at yim am naan fal leen ma. naan jox leen ma réew mi. waaw maanaam ja réew mi jànq ji laa jànq ab jànq. waaw bu wër réew mi fii ba Louga ne ab jànq laa bëgg buñ ma jox kenn du jëlub jànqam di ko ko jox ndax at yi réew waaw ab jànq laa wax de jànq jur sa doomi jànq naan maa ngi koy may paaw 63 ans amut ku hmm. koy defal amul ah, fu ku koy jox ku la mun yow réew moo xam ne jànq ji boo ci laaj ba déwén duñ la ko jox naan jox leen ma mi hmm. réew mi jànq la moom magat déedéet yow saa njóogo da nga jur sab disket bu mool di ko jël di ko jox paabu paabu màggat bi hmm. at yi mu am dama ko mayeetu la nga mën a am ci jànq ji bay am réew mi yow na muñ li ci des ci kanamam jaamu yàlla la ak faju ak faju mag du wér na dem faju ji <laughs> da xam nga ne waaye mag mag 63 ans ak sëñ bi ak ah. Hmm. Amadou. pourtant mi ngi baax waaw baax na. waaye bu toog maanaam plisal ak Amadou ba fukki at ci kanam. lu muy mel mais Cheikh Bara bëggoon naa bëggoon naa bëggoon naa Cheikh Bara. <laughs> léegi nag hmm? président Macky Sall. démb dégg nañ ko mu tudd pour la première fois gars yi ne pour la première fois mu tudd Ousmane Sonko. waaw tudd turam ne. yéeneem doonoon na Ousmane Sonko bokk. waaw eh. nguur gi. résultat yi laa la bëgg a wax. waaw résultat yi. yi di ñëw. waaw yow kii bi kii ko voté guñ maa la ko wax fii nag tey. ah eh, jëwal ku ndogu bala ngaa naafi la xam sa président. ku ndogu. bala ngaa la. Hmm. xam nga ndogu ak naafi la moom daanaka yàggul. yàggul ku ndogu. Hmm. bala ngaa naafi la di nga xam ne di way président Sénégal. Ah loolooy li wér. du am. bindal denc alxames a ngi ñëw maa ngi toogaat fii alxames bii di ñëw danañ xam kan mooy président Sénégal xam nga résultat élection yi nu mu demee. Hmm. mi ngi mel ne ñu ne woon maanaam maag Jibi Gueye Ndiaye xam nga Jibi Gueye Ndiaye. waaw ku la ñuy def concours ku sut. yaay jël réew mi. xam nga ku xamut Jibi Gueye Ndiaye man nga fee nekk naan waaw Cheikh Baara bu ñu wutee ay def lii def nii waaye ji. waaye ji Cheikh Baara yoxamti ko. <laughs> waaw boo yoxamti ko rek wut ab koppati teg ko ci kaw rek maanaam di nga def nii maanaam man waa kër Amadou Baye ci loolu leen nekk. waa kër Sonko nag ñi ngi mel ne ñun ñoo yor ñoo ñooy Jibi Gueye Ndiaye xam nañ ne moom boo xajee gudd rek. waaye buñ taxawee jurul xaar ex expert yi quoi buñ taxawee rek dañ naan sëñ Baara demal muñ gis nga résultat yi bu <laughs> nga résultat yi bu nee bip bip bip bip maanaam xaar am expert Ndiathawoo expert muy calculer. jëru ko. Ah. comme maag ay statisticiens yooyu ñooñu di. maag maag Jibi Gueye bu ñu doon tolloo jërul wut centimètre. da ngay xool nag xam ne ah lii moom du combat. lii am ni sàcc waaye yow ban sàcc. sama oto bi dama koo tëj ndax damay bañ ñu sàcc ko. sàcc moom bis bu lépp la ji sàcc. waaye mhm. élection yi ku ko man a sàcc. sëñ bi dama ne la man damaa wàcc ci terrain bi. Mhm. ba presque xaaju Sénégal wër naa ko. gis nga bàyyil ba 17h gis nga saa njóogu bu dé 17h 17h 17h ci kañ ci ngoon tey oto yi nga xam ne dama cee taf foto yi jomaay ba mu fees nañ ko jël rek ñu jaar nii nga xool dañ maanaam oto yi ban duñ xam ne kenn nekk ci biir de damay toog ci biir oto bi mm-hmm. moto yi dañuy topp oto bi piip nit ñi génnee seen loxo yi wë wë far ko defum mitin circulation bi laa xam parce que dañoo seen foto yi jomaay photo yi déedéet man dama doon ñibbi di ndogu ji wala dara rek maa photo yi jomaay yi lañ gis rek tàmbalee civilé ñoom te chaque jour boo jaaree ci péage bi mhm. maanaam embouteillage bu amee rek bu ñu gisee photo jomaay yi rek moom nit ñi dañ far soppali ko mitin ñoom tàmbalee civilé léegi koo xam ne yow saw photo sax moo ëpp bayre ñu ngi koy xëccoo la ñu naan ay ay premier tour ak deuxième tour mhm. loolu mën na nekk gis nga ñii yàllaa leen fay mooy Ousmane Sonko mhm. suñu waxante dëgg Sonko est xam nga ne bi mu génnee kaso. waaw def na juróom-ñaari weer kaso. bi mu génnee kaso léegi gis nga ko këram. waaw duggul këram. def juróom-ñaari weer duggoo sa kër bu ñu la génnee xanaa di nga dem sa kër sa xool sa njaboot. hôtel bala fanaan xëy suba dem def conférence de presse Sénégal la ko doon defal bi mu paree mi ngi ci karawaan bi. woy juróom mu jigéen. Mm-hmm. maam Paate démb dama na ne ma dama ne Sonko ana ana maam xa yi mu ne ah yaakaar yi de xanaa séenante nuyoo rek waaye ba tey jii noona <laughs> koo xam ne yow ba nga génnee ak négé ni taloo sa jabar taloo sa doom taloo sa yaay réew mi rek nga tal nekk ci kaw terrain bi réew fu ne nga jëm fa te ci kaso nga jomaa jomaay fay def un an par ci prison bi presque bi mu génnee dégg nga ko njagañaaw këram ba mu fa demee dugg summiku pare na ci duggatu fa ñooñu ñooy laaj réew mi ñoo xam ne mbëggeel gi ñu bëgg réew mi mën ngaa prouver ne ñii réew mi leen gënal seen jabar réew mi leen gënal seen doom réew mi leen gënal seen liggéeyukaay réew mi leen gënal seen mbokk réew leen gënal seen dëkk ñooñu ñoo bëgg réew mi prouvé ko yàlla fay leen jël xoolu sénégalais yi fayee leen ko du njabar du dara bu doon téere yu ñu takk ma takk baa ma takkal soye bu ñu dem laaj réew mi lii yàlla la <laughs> yàlla borom billaay yàlla xoolal Sonko dafa dafa bëgg Sénégal prouvé ko ci ñi mu àndal ba tàggat leen ba ñoom dangay ngay yëg ne ñii réew mi leen gën a lépp yàlla jël ñoo xam ne ñoom itam ñoo ñoo leen gën a lépp te réew mi tax képp lii doo ngay problème bi te gis nga résultat élection yii maa ngi lay nettali léegi ay anecdote mhm. man bu njëkk bu ma daan camp Sonko da daan campagne nit ñi di ko dab di ko jox xaalis ngay kontaan nga daan eh ña ngay jox xaalis Sonko man ñetti nit Dakar gii. dab na ma ne ma jàpp doom ne am Sonko mu ndaw a ngoog ma ne ah Sonko de daan wër ñu koy jox xaalis tey ay turandoo lañ koy dabee. ñetti yoon am dem naa ba Louga am ko ne ma man am doom ju jigéen ji ma Sonko laa waatoon na dinaa ko tudde mu juddu di jigéen ma tudde ko ko ma ne ko xanaa kon da nga koy da nga koy <laughs> ba koy tooñ nag ko <coughs> ndax Ousmane mu jigéen moom daa xorom mu dal ah. loolu moo am léegi mhm. gis naa benn taximaan boo xam ne dafa ñëw di xultu gi waxu ko nag waxu ko man sax waaye dafay xultu ne waaw ah xaw ma ban ban ban ban ban deesee borom xaalis la daal naan ma léegi damaa bëgg nga yóbbu ma suñu dëkk ñoora derib ma dem wate ji ah ma ne ko yow man ma yóbbu la nga wate man du ma wate man waaye kii damaa yepp waa yow sénégalais melul woon noonu boo ma saan boo ko ma saan ko cin mil mu jox la kayitu wateem kooku tey nga ne ko kaay nga liggéeyal ma ci suuru wat bi mu ne ma ko def démb dafa am ku ñuy wax donde euh, ci euh, fi ñu nekkoon foofu moo daal laa la ma fekk di ko nettali mu ne rakkam ju jigéen dafa nekk Fatick damm mu ne ko fat foofu pour mu faj mi efficace ñëwal dakaar mu ne ko su ma ñëwee wate damay fekk foofu nga xam ne dafa préféré téye damu damu bi ba watee toog naag benn journaliste bu mag du ma ko tudd mu toog mu yàgg mu naan résultat ah élection yi war naa jàll ci jàmm ne ma a ko la mu naan sama carte d'identité bi damay toog mu yàgg rek ma tiit di ko làmbaat ba xam mi <laughs> ngeen mën a maam yii fii la sénégalais yi toll mm-hmm. dañoo pare mm-hmm. pare googu nag maanaam du Amadou Ba du Macky Sall du APR du kenn ku mën a tere sénégalais yi fal président bu bees liggéey réew mi loolu amul ku ci am garab te Macky Sall joxe na résultat yi mu jeex. ah nu mu ko joxe. 19 candidats ñoo am. waaw mu toog ba mu yàgg mu naan bu Diomaye ñëwee du ma du du du mën a dindi sama négociation yi ma def sama sama contrat pétrolier kon kay xam na kiy ñëw. wax na ko ci interview tubaab ya. mu ne bu Diomaye ñëwee waaw bu Diomaye ñëwee du ko dindi kon kay xam na ne Diomaye yi ñëw. Macky Sall loolu la waaw. interview tubaab ya la ko wax bërki démb bi mu def bërki démb moo ko wax waaw moo ne ñoom jomaay bu ñu ñëwee duñu ko dindi. donc bu mu jom ñoom jomaay. non mais est-ce que laaju ñu ko ne ko euh, bu keneen ñëwee. bu lu tax mu ne question bi ni ko. waaw lu tax mu ne lu tax mu ne jomaay. waaw mais moo ne non am na nuñ ko ko mën a po bu boobaa moom ñeneen ñi la éliminé. Macky Sall moo la gën a xam ne dama lay wax benn affaire boo xam ne ne ko ñëpp seetlu. waaw Macky Sall bi tabaski gi mi des ñeent fan ci la tànn Amadou Ba. waaw avant tabaski. Mm-hmm. ci la tànn Amadou Ba mooy ba muy dem Ricci. ci la jël Amadou Ba décidé mu nekk candidat moo tax suuru tabaski mu bàyyi Amadou Ba dem jullil ko. Mm-hmm. bi mu tànnee Amadou Ba mu nekk candidat ci calendrier bi fal Amadou Ba la ko tegoon amadu Ba dafa jàppoon ne ku ko jàppal Sonko tasal ko Pastef mu falo mu defal ko ko ni mu ko bëggee. Mm-hmm. bi mu demee ba xam ne kon Amadou Ba mu yi du faloo su Sonko mooy faloo. Mm-hmm. li Sonko bëgg ma ngi ca. génnee ko kaso génnee booyam joxaat ko parteem leer na. seetlu li ma la wax bu baax ba mu xamee ba mu jàppee ne Amadou Ba mën naa falu li mu bëgg da koo defal li muy difficile difficile da koo jàppal Sonko tëjal ko Pastef tëj ma tëj ñu bari parce que Amadou Ba mën a des ak terrain bi bi mu demee ba xam ne ñii lii xeexu leen sonk mii même boo ko tëjee day génn lijjanti na amnistie tijji na ñëpp tijji na sonk delloo ko parteem kon kay xam na résultat élection yi ñun ñooy wax nii rek waaw ñun ñooy ruube Ah? jërëjëf Cheikh xam nga nag maanaam li ma wax démb jomaay laa la la laalum bëggoon a tooñ démb mi mënu ma cee jot ah. maanaam mbooloom démb mi ku leen mën a solali kap ku leen mën a solali kap kenn kan mën ngaa dem Jurbel la nga fa mobiliser nga solal leen i kap <laughs> ah dem Louga démb la fa Sonko def solal leen i kap waaw dem dem dem eh, Mbàkke solal leen i kap Amadou Ba nag maanaam xoolal bu dajale woon mbooloo mi bu pare mën naa xam ñaataa fi nekkoon na xam ñaata kap la seddale rek ñëpp ay soli kap taxaw yor yi bant di nax seen bopp waaye bàyyi leen ba ba dimanche. kab yi lay compter. dimanche daal béy boobu buñ ndogoor. buñ nee Amadou fi mu naa mën a xam ay bilan. bilan bi moom bu bëggee xam bilan bi li koy topp yi rek. kab yi rek ñëppay soli kab di xoolal ndaje Amadou Ba lay wax ne mbooloom politique saa boo gisee ñëpp nu róole mhm. li nga am matul ñeenti nit. waaw da ngay wax ak biti wax ak kii wax ak kii jox leen ay kap ak ay tiset ñu dem lijjanti ñoom. Mhm. yow xamoo xamuñu la xamoo leen dañoo lijjanti indil la. foo gisee nag mbooloo moo xam ne kenn morom gi nuróole wun mbubb loolooy mbooloo mu la topp hmm. ndax kenn ko ne da jóge sa kër ci sa volonté bopp ñëwal la moo tax mosoo gis Sonko taxaw ak ay nit gis fa ay ñaari tiset yu nuroo hmm. amut d'accord dañuy nax seen bopp rek jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye borom def gis Cheikh Bara eh, ñëwal jox ñu programme parce que temps bi jeex na nekk ñu minute de wala temps bi waaw waaw suba waaw maa ngi sama kër hmm. arrêté nga campagne waaw suba daal maa ngi sama kër waaw waaw ajjuma hmm. euh, cité sëñ Mansour termini su 48. waaw liñ fay faj mooy hémorroïde seere hmm. biir buy jooy ballonnement boo xiifee doo mën a jekki-jekki boo lekkee tuuti biir bi ne kekk wala nga lekk am problème mu digérer wala biir bi di ëfu rek ngay ngelawal boo demee toilette ba nga dem toilette air rek gi génn ak hmm. muy delloo sa awra ak ngay tàyyeel sa bopp di metti ngay géex yooyu yëpp dafay am loolu ak néew kàttan yooyu yëpp dañ koy faj ak sangatu ubbeeku sangatu bayre sangatul njare njare ak luy doxal say mbir daal ak seet hmm. seet say mbir wax la lan mooy sa mbir hmm. yooyu lañuy def ajjuma suba samedi danañ ko def dimanche nag moom du liggéey ndax élection yi hmm. altine ci lañuy ñuy faj rab yi waaw képp ko yori rab maanaam moo xam da am jë dalaa am jëkkër ko mun xale yu mënta wax mu yéeg xeetu lu bépp rek boo ñëwee incha allahu rabbi danañ la ko seetal fajal la ko ci même jour li ci ëpp ci ñuy ñëw même jour danañ danañ tàggoog seen i rab incha allah lëndi ak euh, mardi ak mercredi ak jeudi ñi ngi asalem 2 ginnaaw école ma jëy sàll am nañ boutique Touba ci wetu kër sëñ Bass Abdou am nañ boutique mbuur ci ginnaaw osan bi aboo taal mais toog moo fa nekk mm-hmm. am nañ ko Thiès kër gi jàkkaarloo kër Mbay Juuf bu Thiès mm-hmm. am nañ ko Casamance wetu kër ñoom Sonko képp ku ci woote ci numéro yooyu rek dinañ la jox représentant yi wala nga ñëw ci kër gi fekk nu fa. waaw incha allah. jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye borom def def gis seen rajo faj ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala ajaratu lenge yaa ngoo. ayca Alaaji ñu ngi lay remercier bu baax di remercier Cheikh waaw waaw waaw. élection yi. Hmm. ñu bari dañu naan Sonko génn na kon bokk na Sonko bokkut ci élection yi jomaay mooy candidat wu Sonko jomaay nag mooy kayit wu weex wi kayit wu weex la yor ka ca nekk am ab sikkim fukki candidat ak juróom ñett la kenn rek moo ci am sikkim bu sëq kuy wate rek te bëgg a wateel Ousmane Sonko boo wateelee borom sikkim bu sëq boobu wateel nga Sonko waaw remercier leen bu baax a baax Cheikh Bara Ndiaye di jaajëfay Baye Ali ak Abo Abo borom Mbour ñu ngi koy remercier bu baax a baax jox leen rendez-vous lundi ci kattanu yàlla desit bi di ngeen ko fekk ci Solution TV. boutique Solution. tu tuddul keneen tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paie mooy ki leen di jëmale kanam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 patron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paie mooy ki leen di jëmale kanam dañu am fayda dañu am fayda Walfadjri, la voix des sans-voix.